Thank you tay nak dama leen andil surprise bu mag Oustaz job la leen indi tay pour mu delo ñu ci yalla waxtaanul ni ci wéru koor. ngay lan yow Oustaz lan. Oustaz job ki mo Oustaz job waw yow ku yabaté nga. Eh. ma wax nga ñëw fi na ma ay Oustaz job la indi sama bët yow xamoo sa bopp. eh. yabaate nga eh jëm. ci biti jëm. eh kaay toog nga naa ma ci biti. yow kii indi ganam ñëw toog di waxtaan ak ñun nga naan da ngay génn néeg pour lan. mais kii am na jikko de. yow moom amoo loo wax moo na a réglé dëkkandoo ah yéen amu leen li ngeen def indee oustaz kañ kii indi lu ñu indi lu indi lu ñu oustaz Iran Ndaw ngeen bëgg ñoo moom tamit réglé leen sama mag bi li mu def baax na. jom xamee wala ma yëfu ñàkk fayda maman ci boppam si suba ba tey fii la toog mooy pël bu rafet. maman lu fi waxul ci wax ju ñaaw rek amul maman de nee na oustaz Diop mii lépp lu mu wax suba ba ngoon amul. tele boo jàpp instant bi ñu ngi waar di ñu xamal si ñun kii de di ñu delloo ci yàlla te tamit ñoom dañoo war a bàyyi habitude boobu weeru koor rek la ñuy commencé di waare waaye kenn du oustaz boobu ci suñu wet kooku wàllu kaamil nitu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg kooku daal boo koy xool danga koy classé ci nitu yàlla yi parce que mu ñuy waar alquran bi muy jang set na sha allah wax deug yalla fu moko deglo rek sama xel ni ci suñu borom rek lay dem macha allah nga baal ma de baax baax mhm. suñu borom dafa am lu mu wax nekkul ne wéru koor kese la kat yi wara génné seeni aya mhm. di warate mhm. chaque jour dañoo war di warate nit ñi di jëriñu ndax nit ñi léegi dañoo def kat yu bon yaangi fi def defkatu ñaawte fi yaangi fi moo taxit nag buñ ci sukkandikoo rek du ñu ree ci weeru koor bi daa war di continuer nag waaye nga ñëwaat ci oustaz Diop nga baal ma de waaye kooku jubut de ay mbiram teg ci nag nee na li nga xam ne maanaam moo nekk euh, rajo bi da ciy jël da ciy dugal kaset yaakaar ne oustaz bi la fekk du oustaz bi voix bu neex bi ngay dégg ci moom day teg nii kasetam di ci toppandoo lay wax ko defee ne nit ñi naan ko yaa may conférence al jubut mbiram luusa nga ca nee na ustaas bi teg ci daaram bee mu yor ñëpp jóob lañ sant xale ya góoma di fuuta la nekkoon ngee dëkku Cheikh nga xamante ne ku fa génn arabisant dëgg wàlliw kaamil borom bànjagara waaye moom ku ko ne jàq xaaju kanam gi di iblis la lay jox ah, jubut de neen dafa tëji woon daara mm. waaye daara ba mm, gone gu ma gis comme suñu genre gi nii nga muuru muuraay ba rafet loolu mm. bu subaa mën a la yaay tari mm. te tari bi tari bi boo génnee doo génnee noonu gone ya daal maanaam daara ba soo bëggee dégg dëgg ñoom ñëpp ay doomu bàyyi la maanaam ci wax bu gàtt lu fi maa waxul ci wax bu ñaaw rek amul loolu rek moo tax ma jóg du leneen doo wàññi niveau yi tuuti maman yaa fi wax loolu yëpp ah maman maman yow lan la. Oustaz maa ngi jégalu bu baax bisimilah. alaykum salaam ñu ngi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di jégalu tamit bu baax ci ni ñu fekkee jotaay bi ak jotaay bi ni muy doxee ndax ay jullit bu ñu toogee waruñoo wax ba seen dën tàng. Mm-hmm. wala ñuy xëccoo ci wax uh-huh. eh, ay julli fu ñu toog rek njariñ moo foot di génn chaque jour ndax yonent bi salaa moo ni ay julli bu ñu dajawee toog ba jóg ba dem te waxuñu leen jëriñ seen wàllu diine ne day mel dañoo daje woon tiim ay neefere mbaam ba seen xol seetu ñu dem te li may wax rek gannaaw bu mu waat ñëpp nag ci li nga xam ni moom moo fi jot a am ñoo ko déggandoo ñun ñëpp uh-huh. te yaakaar naa ni lépp rek li ko waral mooy ñaaw njort ñaaw njort ci doomu aadama yéen bi salaa salaam dafa tere ñaaw njort alxuraan tere ko yàlla dafa wax ni yaa ayyuha allazina amanu ijtanibu kasiran min azanni fa inna baada zanni ismun yàlla nee na na ngeen moytu ñaaw njort ci doomu aadama rawat ne sa moroomu jullit ndax bëy na ñaaw njort yoo xam ne bàkkaar la bëy na njort yoo xam ne bàkkaar la te nit ki dina waxal nit kii loo xam ne nekkul ci moom mm-hmm. te dina wax nit ki koo xam sax xamu ko moom mm-hmm. mën naa am ni soxna siy wax soo ko laajoon kan mooy oustaz Diop du la ko wax may ma foofu maman xam nga ko ah <laughs> en tout cas ñu ngi jéggulwaat bu baax di wax rek suñu kàddu jullit warul jël benn kàddu gu ñaaw di ko teg ci moroomu jullitam mm-hmm. donte ke sax xam na ni diw sàcc la wala diw jëwkat la wala diw njaalookat la islaam dafa am nu muy tëralee tey jii même bu fekkoonte ni da nga xam ni diw njaalookat la nga ñëw ci ki nga xam mooy àtte nga ni diw njaalookat la dañ lay wax indil say seede même bu fekkee yaa ko gis waaye yow doo doy seede kon jullit bu nekk na moytoo teg ci deru jullitam lu ñaaw mhm. ndax asa an yakunu xayran minhum yàlla nee na julit bu mu xas moroomu julitam hmm. ay nit bu ñu xas moro seen i moroomi nit ndax amaanaak ngay xas sax moo la gën hmm. amaanaak ngay teg ci daram lu ñaaw moo la gën te ñun comme ni ma ko baaxoo di defee wala moo koy wax hmm. li ma xam ci yéen mooy lu rafet su ma xamoon ci yéen lu ñaaw su ma leen mënul woo yedd leen ci du ma toog ci mbedd mi di ko wax oustaz doguma la de te yàlla bu la dee dog parce que man dégg naa ci boroom xam-xame ñu ne boo sàccee dañuy dagg sa loxo soo reyee nit dañ laa war a rey waaye tamit bëgg naa xam aussi euh, soo soo nekkee fenkat lan mooy sa àtte comme ni ko waxee maanaam nit ki bu sàccee dañuy nag lim sàcc mhm. ndax nekkul tamit nit ki lépp lu mu sàcc dañuy dagg loxoom mhm. dafa am som boo xam ne boo ko sàccee bu tollee noonu dañuy dagg sa loxo mhm. nikki bu reyee nit te tey ko dañ koy rey nit bu jamee nit ki dañuy natt jam-jam bi fa mu toll ñu jam ko lu toll noonu. Mm. nit ki lépp moo tax alxisaas la yàlla wax yàlla nee na mooy fayu fayu mooy lan la la nit def nga fayu loolu te bul tiiñal maanaam bul ëppal fen nag moom ki nga xam ni moom mooy fenkat bi ndax jullit du fen mm-hmm. dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi ndax jullit dina njaaloo mu ni waaw ñu ni ko ndax jullit dina sàcc mu ni waaw ñu ni ko ndax jullit dina def nangam nangam ci lu bon mu ni waaw ñu ni ko ndax jullit dina fen mu ni jullit du fen al muminu laa yakzibu jullit du fen te bëri na loo xam ne bàkkaar yi nga xam ne moo gën a màgg ci bàkkaar yépp fen ci la bokk mm-hmm. yonent bi ñu ko laajee dafa fen nañ ko moytu ijtanibu kasiiran min al kazibi al kazibu nee na fen mooy li nga xam ni yëx di ilal fujur hmm. dafa lay yóbbu ci nga nekk kàccoor kàccoor mooy koo xam ni xelam du am lu baax lu ci daw jëmmam bu jéem a def lu baax kàccoor mooy koo xam ni chaque jour mi ngi def lu bon nee na fenn nag boo ko tàmmee da lay yóbbu ci loolu hmm. sa xol bi dootul nangoo jaamu yàlla hmm. sa xel mi dootul xalaat lu baax nee na wa indal fujura nag yëg di ilal naar yi nee na kàccoor dafa lay jële ommat yóbbu la ba biir safara mm. te fenkat fenkat dëkkuwaayam lenn rek la mooy safara yàlla ñu ci yàlla musal mm. moo tax fenn dëgg dëgg dëgg fen nag mooy nga wax sax lu la laaju loolu fen la waaye ñu ngi lay digal ci weeru koor gi ñu nekk di en tant que jullit ak moromam ndax yàlla moo ni wa taawanu alal birri wa taqwa mm. wala taawanu alal ismi wal udwan yàlla leen bu ngeen di dimbalante dimbalante leen ci lu baax ak njekk ak teraanga waaye bu leen dimbalante ci lu nit ki sax même bu fekkoon man Oustaz Diop dama nekk ci bon mm. ba nga xam ko war ngaa dox jël sa sa dàll sol ko ñëw ba ci sama kër mm-hmm. nga ni ma nangam ak nangam kat maa ngi koy dégg su ko defee man bu fekkee loolu maa nga ca ma fexe koo baax bu fekkee ma ca ma xool naka laa koy moytoo mm. li ma taquluna maa laa na loolu yàllaa ko wax yàlla nee na nit dina wax loo xam moom du ko def te nit dina am jikko bu nekk ci moom mu yaakaar ne jikko bi moo nekk ci ñëpp fekk jikko bu nekkul ci ñëpp ñun nag ñu ngi ci koñ bi di jàngale kenn mës ñoo dégg ci lu ñaaw mhm. baa nga xam ñu ko bu fekkee moom xam na ko na jug wax ko yéen tamit comme niñ leen xamee noonu ngeen ñu xamee dëgg la xamuñ ci ñeen lu ñaaw te buñ ko xamoo yi duñ ko wax ci bëgg laaj mooy ndax ki nga xamante ni daa dëkk ci kër gi di fenn ngeen bokk ndey ak baay ndax moom bàkkaar boobu muy am yow moom mu bokkoon daf la ciy wàllaale wala du la ci wàlla bàkkaar du wàlle bàkkaar wala taziru waziratun wisra uxra loolu yàllaa ko yàlla nee na nit mënul fexe ba jël bàkkaaru moroom nitam loolu yéen a bokk bàkkaar fekkee da ngeen a bokk jëf jëf ji nag yéen ñaar yéen ay bokk bàkkaar ba waaye fekkente ne kii sama rakk la def na bàkkaar maa ngi dëkk ak moom di fanaan ak moom taxul bàkkaar ba muy def man ma am ci mom loolu la bakaram mom la concerné bakaram mom la concerné kenn ku nekk li ngay def sa bàkkaar yow la concerné nit bu fekkee dafay sàcc bakaru sàcc mom lañ koy bindal duñ ko bindal yaayam duñ ko bindal papam duñ ko bindal kenn mom lañ koy bindal bu dee njaalo bàkkaaru njaalo moom lañ koy bindal fenn rek la ñuy bindalee bàkkaar ki nit def ko ñu bindal ko keneen fenn rek la mooy nga am sa doom doom bu jigéen mu matal sëyi am ku ko bëgg ni dama koy tak nga ne ko duma la ko may bu ñu njaalawee ñoom ñaar bakkar boobu yalla ci jox mm. ndax yow ya té digënté bi am parce que ya deful jëf kilifa mm. waye fekkee ni nit ki dafa fen muni ma ngi dëkk ak mom nek mom ci kër gi boko mom ben lal bu ñuy fanaan lu tax ma ci bakkar waye nak amna am na nitu yàlla yoo xam nak ñom bu ñu xam ni yow mii fenkan nga du ñu nango bokk yow sax lek mm-hmm. du ñu ak yow eh, potu ndaa bi ñuy naan duñ ko nangoo bokk ak yow hmm. boo demee ci benn téere bu ñuy wax masaalikul jinaan hmm. seriñ Touba wax na ko fa nee na kii dul ki fenkat bi ak kii dul julli nee na bul nangoo bokk ak ñoom lekk hmm. ñu ne ko lu tax mu ni fa inna fa inna summan yaxruju bayna asfaarihi dafa am tooke buy génne ci diggante weewam yi wax oustaz nga ni sànkoon soo doo julli sa loxo dafay am tooke doo xanaa yow doo julli sama mag ji yaa ko wàll tooke bi daa julli woon ba jëwam bi fii lépp effacé na ndax tooke bi yow defal nii rek bu ma jegee kañ oustaz loo xam ci loolu tamit boo lekkee ci nab na ba muy lekk wala nga naan ci pot ba muy naan nee na yow sa xool dafay wow nga mujjee nekk koo xam ni dootoo gëm yàlla walla ko nangu jaamu yàlla kon képp koo xam ni yaa ngi koy def nga bàyyi ko jëf parce que poson la boo xam ni bu demee ba jaxasoo sa yàpp jaxasoo sa deret safara la la jëmee direct